Laissez-vous tenter par le goût unique et authentique de la mayonnaise Jadida. Jadida, la mayonnaise généreuse et racinée. bas Meublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons. La Traiteur Maiflor M60 Maktoum Kalashop Refle de Ben Mima Koutour Gay Black & Fashion by Toutou Djaria Shop Mifa Kreasyon Mifa Kreasyon kenn new fi kër gi sedd na li xana julliw len tisba wa waa na wa kër gi waa kër gi dañuy mel ni waaw di biñ ak bañ kan la man limuy muy bëllër ne ko la xamul lan la wa ki moy kan moy mindal mi ci kër gi <laughs> ma dal ma jommi kër gi dal sa yo fi duggee rek gis lu bes ginar yi di cappi-cappi musi di cappi-cappi mbindaan yi di dajji-dajji man dal gi kër jaaxle naa <laughs> gii kër neex

yaay ba nga xam dara gërëm waay commencé tay fii la ñuy tëdd dañuy jàmm waay boo fu jugatee nu wala ñu tega dege

keroog nag tooñ nga ko lu leer laa la wax ki sëñ beeg baayam ak doomam ak seen waa ñoom ñëpp nga naan yaa ko tooñ deful dara. Abdou baax na dégg naa la. saa ta tak mais kii yaa moo ëppal. saa ta. fen rek la mën fa su xasee ba waatam bii rek wax na dëgg. bii kàcc fan laa koy waxee. Eu, eu quis fazer uma Não, não. Sei o que eu falei. Fiz uma charge, né, que eu fiz. Não é branche. Fazer? ci rechargeur bi nga dem charge ci fële. non grawut bàyyi ma charge ko fii mais sa chargeur bi yéex na de. yow da nga ñàkk fayda torop. yaa ma gën a ñàkk fayda mais mami Zara maa ngi jégul lu fi jotoon a am xam naa ne maa tooñ damaa comprendre woon rek moo tax. te nga dóor ma fi ba muy bëgg a dee. mooy. et puis yow pole bi yow rek yaa ko nopp boppam mu ndaw boobu.

ki ma gis nii dañ ko santu loolu voilà surtout dëgg dëgg dëgg. Mohamed. waaw yow ñu tuddee la tur bu sell. ngeen tuddee sa bopp. Ahmed Talla Playboy. bon faux eh, wala vrai rek dafa faux. Ah, bon foo Almadi. Eh, Almadi suñu dëkkandoo suñu dëkkandoo kay. vrai ou faux wala Quel classe Première année. Première Après bagla là. Après bac. xamuñu ko defal foofu. yow defal vrai après defal vrai. defal vrai après ko defal vrai xamuñu luy ànd. eh loolu après bac la defal vrai. seen composition ñaata nga jël. i da nga con. ñu di compo. kon lan lay def. semestre lañu def ñii. ah semestre. yow ku la yow ku lay laaj. bu ñu sonal yow looy def. du semestre waaw. fenn. nee naa lu ñu xamul day ko def foo. lakk mooy lan. papa yéen a ngi bëgg a jox sama jikko de ban nga jël. mooy douze. baaxul tane ba tane baaxul baaxul baaxul baaxul. Eh, bu foofu. mais man maay dogal wala yéen ay dogal. parce que tëraay jigéen wala. non <laughs> jamais. ah wax nga dëgg yow. dèjà. loolu. Couple ou célibataire Bon, célibataire, hein Célibataire. Ah Yow daa ma ci tuñ di est-ce Qui, jëf Qui? Qui? est-ce eh diw gën Qui est-ce dina ko may Qui est-ce Qui, kiyaa na Qui ko ce Abdou waaw kii Qui est Abdou waaw Qui est Qui est kay kii di jantal hmm. bon sa papa am na xaalis wala amul xaalis. ah sant yàlla ah. xoolal fii ñëpp a sant yàlla ñu ñëpp ñu jël ci yonent bi sant yàlla lool sa papa am na xaalis wala dafa pauvre. bon très riche. ah bon. dafa nang dafa nang dafa nang dañu xool ba xam fooy moo ëpp wala wala vrai. ñaar nekk d'accord d'accord. léegi la casting valide léegi nag dañ la koy wool diin mu ñëw mais nag ci kaw nga respecté ko léegi ah fële ah waaw félicitations mhm. te bi dama xew noonu nañ dem dafa petit. dafa bëri neex na de. caay bi oto laa gisee. Eh, kii da ko àbb xam naa dafa am. kii àbb kii di jaay kii di jantal. waaye doo ko fàtte. te partenaire tamit da nga koy joxaat. nga génnee jiitu ma la waxoon sama gars Non, non, non, on peut changer de filtre, s'il te plaît. Non, non, non, on va pas Pourquoi ça Non, mais ce téléphone, il y a un filtre. Tu l'as dit, c'est mon téléphone. Vraiment. Pia, watch. Wadi na kasima, nyauna. Pali dan ko ba Mais mais mais attends, ni casting wax ni? Ko une de. comme une am personnalité. Ñu la ñu lay xaar. ne une

kon nag jonge leen yow hey man maa ne damaa nangu kii yaa a yàlla rek bul di def loolu da nga xam kii mag moom lu ñu waxtaanee. attendez attendez je pense qu'il y a un souci là. bul def loolu. <laughs> si elle a pas de sentiment pour moi c'est pas grave. Hein. non si Amna na ko kay. ba tey wax ma ne bëgg. Ah bon je pense que moi je vais y aller parce que je cours pas derrière une fille. si. bàyyi bàyyi मुनम कियारा सब के जो तानु किया ke aku kan कर ये सब किया चिको कति मुमान बे दो बाय tap tap tap yo do amali yo ah dafa dem ciw ciw kena gisoo kii nu mi ñëwee la la la la la la la sama tàndar ma dem naa comment ma آه، ما بزاركي بولا سنة خارا خارا ويما ديكون يوم لو نساقو يو اكزاكتو لو نساقو كل باي بزاركي إيه، يسي تورسا واويما واويما خارا خارا ويما خارا مانكو يسي خارا تخور خارا مفدين باي جوي باي جوي خارا أنا

jërëjëf yow bul wax de bul wax de. yow soxor de. bu dee ci xale bu ñu xeeb. joxumba mi daa bu. eh lekk leen. man sama kaas bi daal Xadisa daal keccax nga ma teg ci kër gi. maam déedéet dama bëggoon ndox mi gën a tàng rek ma dama bëgguma ko woon. Ah, ku la ku la ku la laaj tàngaay sama ngaam yi nga bëgg a toj. jarul jóg jarul jóg jarul jóg jarul jóg jarul jóg de. man baamu jarul ko man baamu jarul ko bàyyi ma ma kii Iki, iki, kii baax na kii day fo baax lay di bëgg sa kanam gi nga acc wàccee ko mam boy ma ngi lay taggu damay dem séminaire pour ñaar ba ñetti fan ma ngi lay dénk kër gi dénk kër gi nag ñaari fan ba ñetti séminaire kañ nga ko mësa def fa dem ta rafal jam un homme averti en vaut deux liggéey bu jàmp rek liggéey bee taxaw rek ba mu soti maam lo bëgg wax ah lan laa wax Asous. asalaamualeykum. lala? yéen lan la. waaye <laughs> ya, nan la nit ñëwee suñu kër ngeen koy rey nii. affaire baadoo li ngeen def lan. eh doy

mu ngi ci yoon wi. lii la la lu xonq lii daggal leen ma ci waay ngeen ngeen booleel ma ko. waaw jë jël ñaar yëpp teg ci kawam. voilà. merci beaucoup. waaye li leen tudd. bi hmm. ceeb. ma lii. jotul ma si léegi lekkal. maam kii boo leen ko li ci kër gi. lekk. lekkal bul sa dara metti pour sa xol tàng nekkal mi lekkal lekk lekkal mi ngi wan moom mi ngi wan te yow wan na wan lekkal ko amul jot.

Farisa kañ nga daan lekk clémentine clémentine maa ko doon lekk ci kër gi ah ay waa ji le <laughs> ah du dara àddinaa na mel noonu. <laughs> dolli ma si bisaab gi dolli ma si bisaab gi. ah. yow kii daa mel ni sama baatu yaay. maam ray ma. Ah. sotti ma essence ko kos ma almet. Ah. maire yi. Ah. sama néeg lañ ta doon di nelaw. maire yan yow. sa ñoom yaay la kay. lan la ci njaaya lu mu do lan la ci njaaya lan la ah ah kon kay bu wax njaaya kat may patron yow do patron di ah barke yaa la ya bon ya bon ya bon xobonat ya elu bon taawu bon yow ya bon waye ni na nga mën mel ay magi jëmma nga tëj ñuy nelaw nga bayyi den fa ciabi den ndogu ndogul bu mu jeex takk ko fa nga tek bër de suuf xasaa desu fi bañ ba noy ba saf suukar bi jeex na si tuutee fi des. yow ya bon. ma jëm ñaajal waaye nga mëna mel. way day la ko sant waaye maam booy la. maam boy la ko sant la maam la waaye doo la jariñ dara. xoolal bañ ba. ay baal ma baal ma ma baal ma tey ma ko baal ma baal ma. nga bayyi ay ma ci jëmm tëdd rek di nelaw. yow xale bi yaa bon. yaay ay waay tante toog leen ma ñëw defal leen ngeen ndogu. lépp yow la. nee woon naa la booy bind mbindaan da ngay bind wala nga bind Véronique waaye doo fekk doomam ki maate bi u dugal ko sa kër da ko toj ba Fadel Fall. ça n'est trop. Xarisa papa lu ak lu tu ak lu petit. yow njaaye yow tamit yaa ci biir. dama ne